foofee fa njaareen xam ngeen ne li gën a yéeme guddi gim fanaan seen njaareen la bind aw kayit jox ko suñu àll yu sëy na ko nanga ma ko dencal saa yoo ma déggee Touba nga door koo xool lan la ci sëñ bi bind daf ca bind ne ama xuruji min dunya ama wamsasin jox ko ko at mi may génn àdduna ci zahir mooy atum wamsas kon xam na jàngale na ca melo yooye na béréb ba di nekk foofee fa buqaatul mubaaraka lu ne xew na fa ci digganteem ak gaañi foofee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon dem naa fa yàlla sàkku ca moom bu dénk la alquran ak hadis sëñ bi la muy jub adda gi nii nee na euh, Muhammad ibn ànd ak ñaari gaayam ñëw waxtu takkusaan siyaare si Serigne Touba àndaale ñaari xaaju Buxaari yi kere bi ñëwee sëñ bi sëñ bi dana leen kuntu ba'da salaatin ma'a rasulillahi fa qaala li inni talabtu laka min rabbi rabbil izzati an yaj'ala alqur'ana wal hadith wadi'atan lak sëñ bi dana leen maag yonent bi nekkoon fii léegi ginnaaw bi ma sëlmalee takkusaan yonent bi ne ma dem naa ca yàlla ba na ko jëlal alqur'an ak hadith dénk ko Ahmadou Bamba moo tax mu sañ a wax sunil xadiis wal furuu ak al kitaab kon mën naa joxe ñu sàmm ko ndax moom lañ ko dénk foofu la amee woon foofu ca boxaatul mubaaraka falam nga nii luy baree bari doon teewe ndax booba li mu doon wut lépp daje na lan moo des ca moom mooy li ñii ñëw bàyyi ko fu nekk ñii nekk ay laajkat xar baax gu nekk tey bari na kaawteef gooy dégg lu ci ëpp njaarim la loolu doon amee danañ ci tànn ñaar wala ñett am na ku ñu wax Ibrahima yaakaar naa karaamatu Cheikh bi Ahmadul Miski indi na ko amaat na ci yeneen mës am doom am naar la woon boo xam ne daan jóge gànnaar dem di yaxantu ji gëm bi waaye mës sa am doom fu ne mu ñaan la fa benn bis nag mokkum naaram na ko am na ko ñëw Ahmadou Bamba walli la kawri la waaye walli la am na ijaaba lu mu ñaan yàlla def ko teeng faa dem mu ñaanal la mu ne man ne ginnaaw damay jaar Sénégal jëm gëm bi naa fa jaar mu ñaanal ma bu ma ñaanalee ñaan ngi nangu muy noonu bu dul noonu it ma xam ne pertement néewu ci daal jël saxaar wàcc njéeréem li gën a yéeme mooy Ibrahima bi mu wàccee njéeréem taxaw ci gaar bi mbooloo daw ñëw wër ko na ko kaay wuyu sëñ bi yaa Ibrahima mu ne man xaw ma sëñ bi sëñ bi xaw ma yëgloo guma ñu naan kaay wuyu ñu bokk yi na ko yow demal rek bu dee yow muy chance bu dul yow eh, jafe gis mii nga gis ko ndax jafee gis la ginnaaw jafee gis la demal naar bi fas ci xolam bu ñëwee ci sëñ Touba danaan ko dama bëgg doom bi ko mag ñi jiitalee ba mu ñëw bi mu nee tëll ci kees gi sëñ bi ne sëñ bi dana ñokket na ko yaa ibrahim inna nubashiraka bi gulaamin ismu ismaila danañ la bëggee la doom ju góor ju tudd ismaila taw sëñ waxagul dara sëñ bi naar bi daal di bind noté sëñ bi ñaanal ko mu dem doxal wayaasam ba mu nekkee ca liggéeyam ba wàññeeku dellu gànnaar ñëw këram fekk soxna soxnaam am gone mu laaj ko ne ko waaw lii kañ la mu di ko nettali waxtu yu mu yëgee mat yu moom bi mu yëgee ci boppam dara waxtu yu mu ko koy wax naar bi xool fi mu ko bind moo tolloog bi ko sëñ Tuubaa di joxar bi naan ko innaa nubashshiraka bi ghulaamin ismuhu Ismaayil mu ne ko waaw ngeen def nan nan nag mu ne ko bi xale bi juddoo te gisuñu la xaar nañ xaar ba bis bi si nu xam ne amoon nga bàyyi bu tudd Ismaayil ñu tudde ko ko rek loolu ba demee ci karaama Cheikh Amadou Miski ma nga ca sëñ Assane Bousso nettali na ko sëriñ Chaybu sëriñ Chaybu nettali na ko sëriñ Saliou sëriñ Saliou ne bokk naa naar bi saxaar waaye li murit yëpp yi def lay def ndax day daal. am na bis ci gànnaar ci njaareem am ku ne ko bala ngaa yëngu demal njaareem am na ko ñëw Ahmadou Bamba mu ne jërul dem ndax maa fi raw xool naa fépp maa jiitu ñu ne ko demal rek bi mu ñëwee njaareem fekk sëñ bi càpp ndaay di tombal mag ñi ku ne la ma laq la ku la dóor ma dóor ko téewul nu dóor la tomb naan ku ne la ma laq la ku la dóor ma ku la dóor dóor ma téewul nu dóor ko dóor la ma tee ngeen a làqu ci nga xam ne ku làqu ci moom doo gis kuy dóorate doo ci aw ba waxee loolu mu ñëw càpp ndaay ca gannaaw moom mu war a laaj daal di fas ci xolam yet te agsiwul ci sëñ bi yett la fas daal di wax ne kii di wax bu dee moo moom jamono wala moo fi ëpp xam-xam wala li ñuy wax dajale ci moom biir waxam ji da ci tudd yett rek bu ci tuddee yett rek man danaa nangu a xoola ku tiim say ku say taalibe wër nga di leen tombal nit ñëw ca ginnaaw mboorooma càpp ndaay nuyoo wut yëgoo ko mu ne biir wax ji bu ci tuddee ñett daan na buy wax bu tudd manto baa mu tudd kaamil baa mu tudd naaru góor bu ci tuddee dara ci biir wax ji rek sama istixaara moo may may ni kii moo jiitu sëñ bi wéyal ba yàgg am ci biir mag ñi ku daanu na ko mbakke jox naa la sama naaru góor wa sëñ bi daana ana Malick sëñ Malick Ndiaye na ko mu ne ko neel kii laaj yett benn ngoog maa ko deseel yaar te nuyoo gut dal di wéyalaat wéyalaat am kenn ku aalu na ko mbàkke jox naa la sama mant mu mu ne ko malik ne ko yaara ngoog noo ko desee benn bismillah na ñokket ñëw sëñ bi ne ubbit na gayyi kaamil bi na ko jabb na ko noo defa ku dëgmal sawara nga yóbbu ajjana mu ne gayyi téere bu ne ko newut ci téere de newut ci téere de loo jëf ak sa borom lay doon te ahmadu mii képp ko jëf moo tax boo demee ci waxi ku ñuy wax adna bahaani muy Yuusuf ibn Ismaayil an-Nabahaani nga xam ne ku ma a tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ku yéeme la woon bi sëñ bi nekkee ci géej gi dafa dugg xalwa laaj suñ borom ndax kaw suuf am na ci ku tagg yonent bi lu toll nii li ma ko tagg nee na yonent bee nag ku ñuy wax Ahmadou Bamba kenn jutul asakal bi sëñ bi jógee ci géej gi ba nekk njaareem nag mu am jafe-jafe xaalis moom na yi yàlla ubbil kiiraay yi sëñ Touba ba tey bari demee ci karaamatu Cheikh ba xamatul miski yi fekk ci li ma lay wax sëñ baa nga ca njëriñam nabaxaani nga ca liban yàlla dindi kiiraay yi sëñ Touba di jàkkaarloog nabaxaani fa mu nekk ca liban fa arsala ilayhi maalan kabira noonu la ko waxee sëñ bi yónnee ko xaalis bu bari nabaxaani faj jitteem ba noppi nag yónnee sëñ Touba ay bayit daan na xaw a علوما للإله وفضلا لا يمن وفضل غير ممنون أو القديم الذي لولاه ما سجدت على الجباه ولم تقرأ به النون إن امرأ فاته المختار من مضر وفاته قادم المختار مخبون daan na njëriñ dafa lamboo xam-xam ak ngëneelul yàlla lu tax ka fa nekk Ahmadou Bamba daan na ka fa njëriñ nag muy sëñ Tuubaa bu duloon ak moom benn sajaada du am gënu jë te kenn du jàngal Alxuraan daal na ka fa njéeréem nag képp ku rasulullahi raw nga fekke jamonoom te ñëwoo ci moom perte nga inam ra an faatahul muxtaaru min mubar wa faatahu xaadimul muxtaari maxbuunu ci nax ak caaxaan nga nekk boo xoolee ba sëñ Tuubaa raw la loolu na ba xalima nga ca li baax te bokkul sëñ Tuubaa jamono léegi dana doy déedéet bi sëñ bi waxee beneen mooy mën la tuhu sifatu tabqi tabliga jooju mën a wax ne euh, xayru jamil alamina ahmadou xaddamu alal baraya samadou sëñ Tuubaa nee ne bi mu ko taalifee tamit yéex a julli si ci jàkka ji loolu ci njëriñ la ne mag ñi jaaxle bañ dem bay bëgg a julli sëñ bi ñëw daan na bi ma defee xayri jamil alamina ahmadou xaddama alal balaaya samun rasulullahi bég fa mu nekk ma ne kan lay yónni yéeréem ci ahmadou bamba ibnu al malik ibnu mitalib alfay yi moo ne man maay dem sëñ bi ne na loola war a lool bokkul ak taaba safarul xaraaj ak muy safarul xuruj meneen mbir la xidmatu xayril alamina xad mahat daway isam anni fa mahat lu sew la lu xew ca foofa ci digganteem ak gaañoo ñuy nekk ca branche ba gën a sori ba noppi sëñ bi di laaleeg ci béréb defe naa dama xamul al albayri gi waxoon ne silkul wilayati lil qadimi muntahi wa mabdaha kataanu min ayus na wala waaye abdul wadud moomu ab naar la woon benn bi sëñ Tuubaa dane ko sama jàkka ji ci biir kër gi njaareem dañ ma fee defal jàkka ji daa mooy xibla damaa bëgg nga wëlbatil ma ko xibla gi jublu penk nee na bi may romb benn naar bu ñox Muhammad muy wax cim xelam naan kii daal ginnaaw du xam xayma euh, fan la kaaba gi féete daa waroon a joxe ngan waaye nee na bi ma sóoboo ci jàkka ji rek dañ ma ubbil sama diggante kaabatu rasulullah salaam kaaba ga kaabatullah ma jàkkaarloo kaaba ga wëlbati ni ma neexee nee na maa ngi ko amee barakati cheikh sëñ man la mu jóg daga ne nee na loolu moom abdoula wuddu la ko wax waaye benn bi nee na daa génnal boppam bisub alxames la yaakaar naa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weer wi daa génn daan na sama mihrab bi daa mooy la dañ ma koo war a wëlbati mu jëm nii sëñ man la mu jub ne sëñ bi day def nii loxo bi ne daa war a jëm nii jàkka ji wëlbati ko ànd moom jëm nii jàngal al mi naxal miski jàkka ji daa war a jëm nii mu wëlbati ko jëm noonu ci loolu mu ci bëgg moom Serigne Touba foofu ci albuqaatul mubaaraka di njaareem bu Jibril daal ñëw fi moom sëñ Abdou Karim Touré lay nuru melaw sëñ Abdou Karim Touré ni ñuy waxe daxayatul kalbi noonu la sëñ Jibril bu daan ñëw ci sëñ bi melow Cheikh Abdul Karim Touré lay yor bu ma saa di ñëw ci moom loola it la muy jàngale mooy sëñ bi lépp daan ñëw ci moom sëñ Mansour Diaw sëñ Mansour Diaw ci mag yi sëñ bi la bokk moo waxoon ne taatihi fii kulli saatin malaikatun wal ins wal jinn muslimina lillah daaka alqadimu allazi man zaarahu li huda yahwi saadata wal bushra min allah lu tax yulil muridina maa yabquuna min karamin wa maa yuriduunahu min anamillah id anamillah turran wa makaarimuha miftaahuha bi yaminihi fa wallahi nee na nit ñi ginne yi dañ daan rang ak malaaka yi ñëw njëriñ di seet si sëñ bi nee na lu tax nee na magasin yi yàlla denc ngëneelam yëg bi jàng ca loxoom nday joorub Serigne Touba. foofu fi buqaatul mubaaraka di njëriñ te melo yu bari ya daje woon fa doxin yu rëy daje fa ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Tasrif Sougou moom Cheikh Jéeri waa daan Sougou nee na dafa am benn guddi goog ci njëriñ. xiif bu méttee metti jàpp ma xiif bopp metti gi ëpp na nee na bi ma ñëwee ci kees gi ci biir kër sëñ Tuubaa gi bi ma ne këlañ tëdd dama ne sama xiif bii dénk naa ko yàlla sama xiif bii de dénk naa ko yàlla nee na ne surtout ma dégg kàddu sëñ bi mu ne Ahmadu ne bi mu ne Ahmadu kees kàddu yi sëñ bi daa mel ni kàddu sëñ Tuubaa gi daa mel ni ab écho buy tàbbi ci kees yi naan Ahmadu Ahmadu Ahmadu ba fekk ma fa ma nekk nee ma ne ñokket topp kaddu gi ba ñëw fekk sëñ bi fi mu nekk nee na dama nuyoo rek mu ne ma bismillah nee na lim ma joxañ di raxasu ma raxasu ba nopp mu ne ma bismillah nee na ma joxañ di ndab ba ma ko ubbee xam naa miin naa kër gi xam naa ne ndab lii kenn toggewu ko ci kër gi ma la ba nopp mu ne bismillah mu joxañ ma muy ndox mu sedd ma naan di wax ci samam xel bu ma doon yàllaa nag nee na ma jékki-jékki ne cey bu ma doon yàlla mu ne ma xinee na ma kon nag la ca topp day meneen mbir mu yéeme yéeme na ko kon nag mu ne ko danaa def nangam nangam nangam nangam foofu ci buqatul mubaaraka di njéeréem nga xam ne béréb la bu yéeme béréb la bu doy waar béréb la boo xam ne kenn ku ne am ca ngëneel ak melo yu dul jeex foofee fa njéeréem day fa la wooloo Cheikh Abdoul Karim Touré bis na ko kaay wuy si ma Cheikh Abdoul Karim nee na may ñëw daw daje kuy génn ma ne ko foo jëm ak lu xew mu ne li xew nii ko tawax ma ne ko lu mu mu ne ma ku baax kee fi bàyyi ko Sëñ Abdou Karim ne ko moo ma woolu de mu ne ko may fa laa jóge te mag laa Sëñ Abdou Karim ne ko moo nuy jiite tisbaar de mu ne ko baax na nee na ñu nodd rek ma dégg bunt yi ubbeeku képp képp képp ba mu romb mën ne ma Abdou Karim ma ne ko mbakki mu ne mittu miraaram daa koo defe fi yéen tey rek faatu naa ay yoon moo tax keroog bi mu ñëwee ñëw di ko ci béb gi borom daaru tiim ko naa kon nii la dikkee def na ko ay yoon kon nii la dikkee da na sëñ Maxtaar si la nee na li ñu ci jaaxar danaan jékki-jékki kàbbar ci tisbaar ba takkusaan bu ne allah jékki-jékki na dal daam dana fa nekk ba waxtu ba dir mu doon na bëri ne ma jàppoon na la daan xew a xew rek ndeke leneen la foofee ci boxaatul mubaaraka di njëriñ fala waxuma la doomi soxna yi waaye ceddo yi waxuma la ceddo yi waaye nasaraan yi waxuma la ñooñu ñëpp waaye kenn ku nekk ak wet ga muy bàyyi ko ñëw di alerte di xool ci sëñ bi wan wet lay jaar njëriñ nekk lumière boo xam ne fu ne la nit di jóge di jëm si ci moom moo tax yëlli ma ne da koo ma sa wax ne sama kër gi sa kër gi ni mu ëppee sama kër gi ak sa kër gi ni mu dale gën a dalee sama kër gi mu ne ko kër yi wuute wut ñi ci kër yi bokkut kër yi wutewut waaye ñi ci kër yi ñoo bokkul njëriñ di béréb boo xam ne fukki at ak juróom yi mu fi def lim ko génn bariwul ñëw na fi xuru mbakke dem na fi dakaar ci beneen décharge ak signature boobu mu fa doon def te waxoon tubaab yi ne leen dangeen di dindi wago yi ngeen may dugal dangeen di dindi bank yi ba noppi suufu njëriñ si ci ngeen di tibb def ko ci booba gaa yi xaw nañoo dee xam nañ fi mu jaar ñoom. loolu ci njëriñ di béréb boo xam ne kenn ku ne bu masaa ñëw fi moom ak li muy indaale sëñ Mbàkke bu so nee na lum guddi guddi guddi lum lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm bu àdduna bi dee nelaw mi ngi jàng alquran fa kam min layalin baataha alqawsu taaliya ala suwari tartili wal kawdu naimu kadaka ayaamun shaqana saatisa wa yut'imuhu multasim wa huwa saimu nit ñi nelaw bay yandoor muy kër kër yi sëñ Moulay Bousso daan ne nii la nekkee woon njaareem kat yaqumu layaali raakixan baxda sawmihi salli imaaman mala fi masajid bu guddee mu taxaw di nafile woor bëccëg yi te sëñ Tuubaa jiite bu noddee mu wuti jàkka mooy jiite loolu moo tax Cheikh Ibrahima Diop al-Mashar yi maam kii toog na ko fala taqis bihi ahad wabri bihi rida samat takkun bihi bila nafat ka sax bi taxat muxtaba bu dara jàpp ba ngay jéem a wutal sëñ tubaa moroom xanaa li fi ne demal nga wuti ngërëmul yàlla ci moom daal na kii nag mooy kenn baxrun li man yabxi na daa nuurun li taalibil huda laysun li jumlati lida xëy xayra man xamaa nee na gaynde gi ne ci diggi mbanding mooy sëñ tubaa ak tab ku koy wut mooy sëñ tubaa yoonu jub ku koy wut mooy sëñ tubaa mooy ki yàlla aar ci biir ay noonam moom Cheikhul Xadim mbokk yi sëñ def na njéeréem fukki at ak juróom ñaari kori ñaari koriti koriti gi mujj fekk ñaari kori yi mujj fekk sëñ Tuubaa njëréem nga xam ne benn bi oto Cheikh Issa Dieng na ko andi benn bi oto sëñ Aliou Touré moo ko andi moom sëriñ bi mu wax ca wax ju rëy ju yéeme daal di wax ne sama dara xajatul adduna sama dara xajatul adduna sama dara sama borom nee na ma duy naa magasin yépp ak ngëneel boo bàyyiwut lu baaxati ma yët la ko te bëgguma yëfi kenn looloo tax sëñ bi wàññik dundam juróom ñetti fukk juróom ñeent fukki ak juróom la waxoon lay dund juróom ñaar fukki at ak juróom la Serigne Touba dund juróomi at fukki at yi juróom la seddale sëñ ma Samba juróom seex Moustapha juróom sëñ Mor Absolo juróom ndax nee na sama borom nee na ma sa dara sa dara xëjatul adduna yu Ahmadou Bam sa dara maa nga see yëpp a fees nga ne yëpp a mat lépp a fees jàll loolu kon la muy jàngale mooy wane matu béréb ba muy béréb boo xam ne armée ya fa nekk moom moo wax sëñ Tuubaa ne kun fa suulu bu dee suba la ajjana ngay yenn ji bu dee guddi la bu dee ngoon la ajjana ngay fanaan foofu fi njareem gàmmo na fa gàmmo yoo xam ne bi muy gàmmo keroog soxla si góornóor bi daal réer ndax mbooloo mu bari ni Cheikh Issa Dieng dañuy taras rek di yekk ndab yi di sotti foofee la góornóor ñëw ca njéeréem fekk ko fa ñëw àndaale xajam xaj bi cëpp-cëpp di bajantu muy siicoo ko wëlisa ga xëpp suuf xaj bi lank sëñ tubaab fitasu ko mu jël bopp bi dugal ko ci diggante ñaari tànk yi juutu tubaab bi ne ko maa ko yar sama xaja noppiloo naa ko noppiwul lu tax nga joxoñ ko mu nopp mu ne ko ahmadu day lu yàlla bind da ko ragal doomu aadama képp ko ngemete nuroo gi bind ko waral nuroo gi bind képp ko waral nuroo gi bind képp waaye lu yàlla bind daa ragal Ahmadou Bamba doomu adama nag moom nuróo gi bind ko waral kon béréb a ngi noonu boo xam ne gaa ñu baax ñëpp fa lañ doon daje keppaar goo xam ne ëtt la boo xam ne fa la mag ñi daan jóoru addi yi di bàyyi ko wet gu nekk nit ñi di jóge wet gu nekk lu waaye nekk sañuy sa yitte baa nga bëgg ko sëñ Tuubaa defal la ko ba dem ci at mu ñu tuddee wam sas nag nga xam ne bi weer bi teroo rek at mi teroo dane maa ngi leen di tere ngeen génn di dem fenn ba ginnaaw gàmmoo ga bu leen di wëreeleetu bu leen demati fenn na ngeen toog ba ginnaaw gàmmu moom sëriñ bi ba loola amee bañ dugg yi ci muharram nga xam ne boo demee ci waxi Cheikh Mahmoud Lamine Baara andi ko ba mu koy tagg ci xasida bushra ci ya ardu tuuba niltal yawma ala kullal bilal bi sa cheikh kula uda te biir ba mu koy tagg dane fillahi su shiddatin xaashi fuaadi ala man lam yakun min jamil xalqi xay googu sëñ bee ko jëmbatal boppam sëñ bee boppam ba xay ga màgg altene jooju jëmmi sëñ bi ci boppam ñëwal na boppam ba toog fa yàlla si taw taw bu ndaw sëñ Tuubaa fatu moo tax bi boori onze heures nangam waxtu yooyu di ñëw bi mag ñi ñëwee xool tànk yi di ko topp boobee lañ gis tànk yi te mujj te gis googee melo woowu mu nekkee nag mënuñoo jàpp loolu sëñ Moustapha Xasaayid wax na ba barki dem bi ma fa demee di gës gëstuwaat loolu mu ne tubaab yi mënuñu woon a gëm ci bis boobu ne sëñ bi nekkatu mënuñu koo gëm ndax lu ne xew na ñu ne ko ja Cheikh Moustapha na leen tey de wér na ñu ne moom de def na ko ay yoon fi nun am na bis yooyu de da koy def ay ay bis Cheikh Moustapha na wér na tey de tey de wér na loolu nag andilu lu rëy ci ku mel ni kii nga xam ne dañu ko daan gis ba bis ñëw tey ñu ne nekkatu ci zahir yéeg ci yeneen pays suñu borom di diggante bu yéemee ñu jëlee ko fa indi ko Touba yàlla na ko yàlla fayal te fayal nu njabootam te yàggal fi Cheikh Mahamadul Muntaqa